wàllum information monsieur le maire bu goxub Kumbam Lamb ànd seex monsieur le maire bu Géejawaay ñëw nekk en forme waaw naka yow. yow gaa ngi nii rek. da ngay tey monsieur le maire en taay da ngay dugg saal. non non non. taay da ngay dugg saal. non da nga mën a tooñ quoi. da nga yëkkati ay kii. Fata nee na sama yëre bi dafa xaw a niróo décor bi ci ginnaaw quoi. soo xool. nekk <laughs> mariage de couleur la. waaw noonu la. mariage de couleur la. ah ca gars yi ñëw nañu wala. waa seen TV l'officiel tey ñaata nga bëgg ñu dem. non non non MD du kii na ko def na ko. Euh, MD ah ñëw na. MD ak Mamba yenn saa dañuy kii di nelaw de. yenn saa dañuy jël seen yoonu bopp mais MD moo koy wàll. xam nga waaw non non Mamba moom vraiment il a été toujours. waaw euh, waaw fu dëgg neex yàlla. waaye MD parfois moom. waaw tuuti ko wax te yàlla rek tax. day wàcc raay bi wàcc tali bi. waaw loolu la non loolu xanaa xam nga loolu mooy inconvénient wu rax. ah da da leen rax. àndandoo baaxul. yii day wàlle. day wàlle dana yàq. cas hmm? contact. waaw loolu la. nga am benn léeg-léeg nga nattu la nga am benn xarit boo xam ne wala nga dëkk foo xamante ne nii moom saa yi. li yàlla xam doy na. nit dafay ñëw jiix fa. nekk bu ah. yàq ji koy. ba fa ñu waxatee lu bon tudd leen. Eh. fekk du waa dëkk ba. ndeysaan. lu ñu wax tudd leen. rax rax gala. looloo dal kii ma ba. Hmm. looloo dal waa régie bi. ba dawul dal waa géej waaye tamit. déedéet déedéet bàyyi yooyu nag bàyyi bàyyi yooyu ngay def. géejewaay kay nag moom. géejewaay kay nag moom mu ngi yokk ay éphéméride. géejewaay kay <laughs> la may envoyé nii de gis nga asma damay teel a yokk ay éphéméride. mantu c' est que mantu waa matinal bi yëpp dañu daan namm si kaay. xool mantu laay kaay waaye daa am lu ma lay wax kaay dama la ko ñaan ngir yàlla de grâce de grâce comme ñu daal koy ñaanee mantu. mantu laay day liggéey. mantu laay ah. kon ah. tey day liggéey daa am lu ma lay wax de xoolal dafa am lu ma lay laaj ñooñu bëggoon def euh, euh, grève de la faim bi dinañ ko def. <laughs> ñoom. ñooñu bëggoon def grève de la faim. prisonnières yi. la mais ah ñoom nee nañ dañoo sonn de. nee nañ en tout cas daal ñuy def foofu metti na longue détention préventive lañuy la ñuy kii la jàmbat foofu kaso bu lan Tiwaawan. kaso yi daal ñu si bëri ay jigéen lañ seen tey sëy yi tas na. ndax liñ leen fa tëj te kenn àtteew leen. LP dugal nañ ko kenn mayu leen ko may. mani nañ ko waxtaanee après. réew mi màggat mu feebar la. Hmm? màggat mu feebar. yaram ak màggat la. secteur boo laal day métti. foo sa laal day métti de. waaw boo leen déggee nag ñuy wax sur le. sur le hmm. papier di théoriser. Hmm. da yaakaar ni genn Sénégal 92 pour cent yi na nga àjjana. man boo toog ak benn ministre ngeen def émission wala seen administrateurs yi wala seen seen seen seen DG yi. man ci yàlla gars yi bu ñu la jàppee euh, monsieur le maire ba énuméré la. Mhm. ay projet wu Macky Sall ba bàyyi. mais da nga naan Sénégal. Ah. est-ce que fii. am na ay jafe-jafe taux taux de taux bi est-ce que nekkul ay. ay ay cinq zéro du cinq ay zéro virgule ñëpp a ngi xëy. ñëpp a ngi xëy. naxaate. Ah, a kii de. xaaral ma ñëw jàkkaarloo ñoo mën a estimer de. xaaral ñëw jàkkaarloo. démb na ko mën a la monsieur le maire di def njaabu Abdoulaye Wade. waaw njaabu waat di ku coro saar déet <laughs> njaabu <laughs> xam nga waat sax waat moom man ay waat moom man man man ay mbiram naka jekk ci laa mantu ñu ngi ko wane fee mu lañ la defal noonu waaw ah, wane ko fi léegi nii ci ginnaaw nii waaw wane nañ la nga toog nga taxaw noonu mantu nag da nga mel ni di ñëw fajar nag de mel ni kuy yéen gi ah mu mel ni kuy diw moom la moom laa bëgg waa Kampagner ah, gi gis ko. <laughs> mantu wuy ma mantu. monsieur le lu mu doon. looy dékkee monsieur le su gaa yi gisee big bi rek tiit. <laughs> tey ko koy signal. non Macky kay muy signé noonu laay signé. tey koy retiré ci groupe WhatsApp bi te du Idriss Seck tey day dem conseil économique. waaw léegi dama xamul ndax Mimi day ñëw wala. non non non non ñëwul. mais mën na nekk une petite surprise. wuy ma tey damay xool ñan ñoo fay dem ba nit waa ne bañ ne dañ laa invité ba nga dem fa. <laughs> danga bokk ci sponsor yi ku fa dem ma ma signé décret. kon tey ku bokk ci idi danga bokkoon suñu sponsor yi danga dem. na na ba nit dem fa. retiré groupe WhatsApp. loolu loolu rek xaar ku fa dem dinañ jàpp ne da nga cautionné li li li Macky Sall ak Idi def. opération raxas. big bi daal ak Idi te dama ko inhalisé. ah te maître Djibril Waar. waaw Waar. yàlla baax na. <laughs> non <laughs> boobu laa mën tëb. xanaa ci biir waa dama def. <laughs> non man fii laa jékki-jékki rek daanu. xanaa ci biir waa. lii boobu bii lay maye nous les waalo waalo. ndeysaan. non ci biir téere la de. yàlla bari na sutura. non mais ngi bëgg a non fu mu nekk nii. yàlla yàlla dolli sutura. kan lañ baaroon ba gumba la xaw ma. non c' est. baar yi gars xaw ma ko créé waaye mere nañ ko torop. sama mbokk yi politique sama fit bi bu ma leen di xalaat. non suba ku ñuy baar. sama fit nii lay def. mais boo wax dina xam lu muy wax. non boo xamee nit ku ñu baar. boo koy seetaan boo dajee jabaram wala doo. kersa. <laughs> oui ma. seen yaram bi pay si. ban kersa. boo waree ñaar yi nii. billaay koñ bu nekk la ñuy dugg. <laughs> ruq bu nekk dinañ fa dem ndax baar porox ndool yi ñu mësuloon jaar ruq ko yi ñu mësuloon jaar dañ fa dem bu ñu dem marché dañuy bàyyi ba timis fekk jaaykat yi laal tamit dañ dëgg nag non ah. et koy monté moo garaaw dañ koy tegal de tim nga taxaw naan dama ne Macky Sall laa bëgg mbooloo mi ngeen déglu ma liggéeyul réew mi adduna du yàgg ñun bañ ànd ak moom rek nga gis booy monté nga naan lan daal di soppeeku. bi si saa booy bu ñu nee arbitre yi nii. doo sifflé bi. non. suñu tudd leen rës ñu indi sa bu bees bi. ndeysaan vraiment. nous avons liggéey ko. rencontré un panafricaniste. <laughs> damuloo si boole. un président. <laughs> Euh, vraiment un visionnaire. boo koy wax sa yére euh, un démocrate. <laughs> un travailleur. nous avons rencontré <laughs> euh, un, un homme. loyal euh, loyal mais très ouvert. c'est ça. Euh, engagé déterminé travailleur. travailleur engagé quelqu'un qui aime son pays. ndeysaan. voilà euh, un vrai patriote. Mm. Euh, fekk yow yaa ne woon Macky bëggul réew mi. ko fi transhumé nañ ko door bal. bëggul réew mi kii du patriote jaay na géej gi. nga ne les accords signés avec l'Union européenne quand on a sillonné les le <laughs> euh, c'est après lecture on a su mais après lecture vraiment kon bien la il a pris la bonne décision la bonoon baax parce que la mère aussi yab yab yàbbi seex xale yi la ak a salte wàccu lekkaat lii yàlla nu la nee na nee na jaxeer nee na vaar mi ngi doog a neex ak fii réew mi toll. barki yurinti jaxeer vaar gaa ngi mel yàlla su bilaay wallaahi yéen nii du tayef de joge ci ndoxu lak dëgg non di laal ay sengoor suba teel bi rek dëgg jëg rek dëgg ba ci sëla yoon ba waaye ñëw nii kenn xamul ni la la tee mooy yéen i ñun ci <laughs> uh-huh. monsieur le maire wàllum immigration clandestine. lu mu wax. peut ah wax na ca de doon xaar toon doo wax de. ah Macky Sall daal en tout cas lu jëm ci wàllu wutal goney liggéey war a boog wutal nit ñi liggéey. day taxawal conseil national pour l' insertion et l' des jeunes. Eh, kon baax na démb la ko xam ne ci conseil. des ah, ministres kon eh, baax na baax na baax na. dégg loolu. baax na baax na loolu fa ñu ñëw ak ñun ci. Mhm. amit jot mi mi ngi ñëw. na. mi ëllëgëm la jàkkaarloo. war a defante. waaw ñu ngi nii de. tekki musóor gi takk ci ndigg la wax loolu de ëllëgëm. Hmm. ak avenir politique am. wal fajiri nañu. Idriss Seck nag tey lañ koy samp. tey waaw. tey day conseil conseil économique social environnemental dana mel ni keroog ba pël ba ji ay maam mi ne noppi. waaw mi bu jékki-jékki woon na tël. kan langa kan mi mi invité surprise. neexul ñaw ñaq yu bari. boo bëggee dégg dëgg na wuy ma góor ñu bari ci réew mi ñemewuñ ko. moo ñemewuñu ko di. Moussa yaa cité kon dana fa jàpp ñàkk rek la ñuy def mimi ni mu siwee moo ragallu ñemew ñu ko def premier la justice ak traque ñu tombeloo mu taxaw rek fas kanam voilà mi mi taxaw rek aj bu la wooyee boo décroché ne allo mu ne la wooyee eh, allo nga ne ko waaye ah, eh, grand na eh, man la sa tata mimi <laughs> lii terminé ne kaay bi sala dinaa dee naa dee rek gis nga ko conseil économique baa ngi nii euh. Mimi Touré mi doon toxalaate léegi nag moom la ñuy toxal. moom la ñuy toxal voilà. nit ñi la traqueuse traqué. ndeysaan mi ngi nii de. ku ayewal waaw. waaye feebar bi nga xam ne moo am ca caaro lu ëpp mhm. juróomi téeméer ci ay doomu aadama dala mhm. gis nga Moussa Diakhaté nee na opposition bi ci boppam gis nga ko. Mhm. opposition bi ci boppam moo wóolul kenn ci opposition bi. ñoom seen ah, mais lii xew nii xam nga kër gu bëri ay tóob. ay nettalikat ay yëddukat. mais kenn du wóolu kenn. opposition bi dajale rek. kenn du wóolu kenn Cheikh Matar Akim Diop. président mhm. mouvement M3D. lu ma nee na mooy nekk cinquième président wu réew mi de. kan moom mii. maa la wax loolu de. am na ci droit. am na ci plein droit kay. waaw waaw mais maa ngi lay nuyu. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci di yow Khalifa Sall ak Ousmane Sonko. lu mën a ne la. ngir mani gisoo Momar Diongo xanaa. nu ngi koy toog nee na kenn du ca perte. ñoom ñaar te walaay bu ñu lëkkaloo danañu faagaagal waaj. danañ faaga waaye yow. gis bu diis. transhumance gi ci boppam du la indil dara. au contraire. ah tonton tonton transhumance. oh elle te crée même des ennemis. ah waaw xanaa xaw ay noonu léeg-léeg lay wutal. mu ñëw. kii laaj dara. dégg source a monsieur le maire ñëw ci jàngoro jaa ngi nii. feebar bi mais lii nag doy na waar. ngàppati lu jege juróom-ñaari téeméer ci ay doomu aadama yoo xam ne jàngoro ji dugg na de. Mm. fi mu nekk nii daal gis nga Rufisque mbir ma yegg na fa. fanweer laa fa dégg. defal attention de. Mm. monsieur le maire. noo gën a yegg na fa. Mm. Caaro yegg na fa. Mbaaw yegg na fa. Bargny yegg na fa. Tubaab Jalaaw ak yéen. mais num teeru bàyyi soo gi rek la jàngoro ji bàyyi. Caaro yi moom ñoo lekk-lekk ji moom. Caaro yi moom boo bëggee dégg dëgg ñoo lekk-lekk ji reconfiguration politique bi nag Khalifa Sall fi mu nekk nii ak Karim Wade luy seen taxawaay place. Khalifa waaw waaye Karim ma sa sa dowaar nag moom wax fa dëgg neex yàlla. Karim day Karim day boo bëggee dégg dëgg. daa wër moom wax fa dëgg neex yàlla dafa doy. Karim moom kenn xamul lii la. waaye golotaal ji. te ba mu ñëw. te boo ko waxee kat Karim si mer. waaw nan mer waaye nag nañ bàyyi ba mu ñëw yóbbuwante galgal ci boppam ma ubbul làmb. bëri kay ki nekk ci arène bi. ah waaw baax na. Cheikh Yérim Seck tam li mu wax léeg-léeg tam day xaw a pour nga weddi ko tam day xaw a. wax dëgg nag lii quotidien ñëw ak ñun ci Macky Sall nag fi mu nekk nii génnee na bagages yi gis nga waa Greenpeace euh, waa Greenpeace Afrique. Mm-hmm. nee nañ européens yi Europe dañoo bëgg jënu Sénégal ji ba pare te bëgguñu doomu Sénégal yi. suñu loolu mooy la. suñu jën waaw bëgg jën yi ba pare te ñoom bëgguñu ñin. billaay ñin ñi moom jën. <laughs> moom la leen soxla yàlla sàkk jën yi ndox mi di def picc yi. <laughs> ndox mi yaa ngi feebar. dégg libération yéen a kaay ñëw ak ñun ci Barça ak Balzac ji. ñii dañoo bloqué ca Maroc. Mm. ak ñett ci ay corps rapatrié nañ déggal Cheikh Fall li mu wax nee ca Ndar juróom-ñett disparu yi dañoo réer mm. te ay soxna la ñu bàyyi seen ginnaaw te ñooñee dañoo ëmb cey waay cey waay dégg nga feebar ba yéeg na Mbuur ak Joal ak Saint-Louis mu ngay law de waaw man nag dafa mel ni moom géej gi rek géej gi daal la singili comme waga waaw kay président Macky Sall na Macky Sall démb wane na carrément ne kontaanul ne ci conseil des ministres très bien loolu ñoom la rek fëgg na ci table ji les éco yéene kaa ñëw ak ñun ci feebar bu doy waar baa ngi nii trop de pitié kar kanam gi lay jël faxas yàq ko complètement rawatina tuñi dégg loolu ay picc yoo xam ne maara deytaal yi day gën tasaaroo sa yaram sa yaram soxna Aïda Diallo ngi nii soxna Saybata Aïdara moo ko invité ca week-end bi soxna Aïda Diallo ca Thiès moo ko invité waaw waaye nag jug dem la def de jug dem waaw bu simple rek jug dem de rek hmm. jug dem la def de waaw kay la solo yéene kaay ñëw ñun ci li ñu am ren ci tonne ci gerte hmm. nee nañ mësuñu ko am un million huit cent Khalifa Sall ndax mën naa nekk candidat élection présidentielle waaw wala déet. loolooy laaj bi benn professeur université Gaston Berger na waaw. ah na. mën na nekk de. ah oui. mën na nekk L32 baa ngi noonu ak 31 bi foofu la hmm. werante bi ne. ministère intérieur 98 ñuy dugal ay bagages ci seeni loi xam nga tappalee ak ak ak démocratie fii la commencé quoi. yow ngay bàyyi ba élection jot constitution bi am lu mu wax ci candidat yi ngay indi la code électoral yow ministère intérieur indi fa ay coppite. boo diyee léegi di lalli sa article euh, sa euh, article L 31 léegi bu dee dañ laa condamné juróomi at bu juróomi at yi jeexee doo mën a nekk électeur yëfu tapale Macky daal ku mu bëgg nga bokk ci élection nga bokk ku mu bëggul wuy ma wuy ma football tey Macky nit ñi Sadio Mané mënaluñ ko dara dégg nga le quotidien yéene kaay ñëw ak ñun ci feebar bu dooy waar bi xew ca caaroy ñu ne Oustaz Tap Ndiaye nag nee na immigration clandestine consécration nationale dana ca am waaw kay waaw kay boo yoree kuy nag ba mu màgg balaa mbëkk kenn yow lay njëkk a mbëkk ku mbëkkee foofu Mimi ak Moussa Diop ak Moustapha Diakhaté danañu mbëkk Macky ñett ñi doon seen coalition day am dara ma ni ñi ngi nii ñi ngi nii ñi ngi koy eh, ñi ngi koy togg de seen coalition day koy togg de ñu ngi koy togg dégg critique yéen rek a ñëw ak ñun ci Mara Mara Mara ngi nii maaraa ngi ak ñi may ngi nii ma nga ca kanamu mimbar ba jàkkaarloo tey mu ngi nii war a yëkkati ca kaw dégg ay waaw kay enquête yéene kaay ñëw ak ci ma Macky saala ndax yàlla nag wax na ci wàllu immigration mm-hmm. clandestine gis nga kuréel googu nga xam ne daf koy taxawal pour wutal ko nay liggéey bu décembre xaajee mm-hmm. ci la mbir mi taxaw yàlla baax lan moo tax ba Ablaye Wade li mu amul woon Macky am ko mm. opposition bi maanaam direct ñu sa la dikk tey ni Idrissa sekk def ba ñëw ànd ak Macky waa réew mi génn opposition coalition yi jàkkaarloo ak makki tas Macky Sall bàyyiwul sax ñi mbokal hmm. waaye Macky yaa mën a tas mooy Sadio ci politique bi non Macky yaa mën a tas li maire bi naan Macky yaa mën a tëje mais kii moo mën a tas Macky xoolal idi coalition opposition bi yeneen coalition yi doon dal ci kawam Macky Sall ngi nii bàyyiwul sax ñi ànd ak moom. Hmm. ñi am ay ambition ñi doon làqatu mu démasqué leen les ambitieux prétendants ñi ñuy njort ne. ñëpp hmm. ñëpp ba nuppi homme politique yëpp ñu ngi riir ne wutali Macky. tey ate kondo kondo bi xale di yor. de pas le pays di stop. dégg waaye nag Macky Sall ngi créé opposition bu radicale incarnée par des jeunes. Hmm. waaw. en même temps te xamu ci dara. jusqu'au boutiste lañ maanaam ñooñu dañuy dem jusqu'au bout. ñoo xam bañkat te ñooñu nag boo sàgganee rek maar day taali. Hmm. mën nañ koo gaañ dégg xam nga différence am ak Ablaye Wade. moo di ni ko Coro Sarr daa yéeme noonu. ba fa Coro Sarr. da doon dimbali bay dimbali ay opposants. parce que ñi ma joxe valise ma ne ci biyam yaa ngi nii le. ay valise lay joxe. ba teg poste vice président ci kaw taabal. xamul enveloppe bu kaki. gis nga lii ñu ngi nii. ay valise laa joxe dégg waaye kii kii kii nag kii kii moom. code bi code bee ko yaa xam. wala sa problème bu code sax waaye moom loxo bi am code. waxuma sax loxo bu code waaye moom moom moom daal moom daal mi ngi nii. ba xam doy na. waaw loo wax. waaw moom daal mi waaye daal na jàpp ne suul gaz du ko tereexee. te te lan. pétrole ko fa te troisième mandat yi dañ koy tere ci réew tey moom tey moom tey. ay boobu bàq. tey moom mer laay njaabu may ñibbi. Ah, tey tool jarul mer. Ah, jarul mer waa déet waay. oo kii. wax dëgg jarul mer. wax moom sax. jarul mer. na négocier ba mu jàpp date rek. ci àddina. eh pour élection locale da koy jàpp par force. dañ koy tëgg par force. ci waxtu wi kay laa wax. dañu ko dinañ ko tëgg élection yi. na koy ak ba deux mille trente dina ko tëgg. dund tëgg ñàkk. Eh, dund tëgg. ña ñàkk dund tëgg tëgg. kon dafa lu tëgg. Macky dañ ko ko dénk. <laughs> te dénk gi le maire tey daa mer. loo ko bëgg a wax. ñaabu football ak weq. Badou Diouf pour la première ba suba. <laughs> jaajëfal ko baax monsieur le maire bu Guédiawaye El Hadj ay Aïdara jaajëfal leen yéen waa Sen TV l'officiel Daouda Djiba gis nañ